mbikum nguurug président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko fa ñoo defal baykatu Sénégal loo xamante ne benn président musul leen koo defal téeméer ak ñaar fukki milliards moom lañ jox baykat yi ngir dimbale leen ren ci campagne bi ñu ne déete waayati jiwu gerte wi nga xam ne fañ ko daan jox ay tappalekat ngir ñu jox ko baykat yi ñu jël ko jox ko ñeneen ñoo xam ne xaajuñ bay nekk ay baykat su ko defee baykat yi nekk ci ay jafe-jafe duñ gis benn jiw wala tuuti la ñuy gis loolu nag bés ni ki tey jeex na intaha c'est fini ndax soldaar si armée nationale ñoom la ñuy jox ñu séddale jiw gerte gi ren la soleil yéen kaay moo ñu ko xamal yeneen yéen kaay yu bari fa ñoo xëy di addu ci ndaje interministériel bi ñu xamal ca jam ñaajo ci njiital njiitu jëwriñ yi Ousmane Sonko président Macky sàll téeméeri milliards moom la jagleloon mbay mi Bassirou Diomaye fay ñëw yokk ko téeméer ak ñaar fukki milliards libération ne Ousmane Sonko nag fa bëgg yëf yi leer séddalem jiw mi jaar yoon yegg ci baykat yi ñu bañ koo jàddale di ko jox ñoo xamante ne nekkuñu ay baykat ba pare dañuy jël gerte gi ak engrais gi jaay ko dafa wax ne képp koo xam ne nag fa ngaa def détournement maanaam joxe jiw wala engrais nga yóbbu ko feneen fu may ab baykat yow fañ lay teg ay daan direct news ne la woon fa wonneeku Sonko caaxaanu de si du quotidien na ko état bi ngay wax fa soppi doxalin tappalek njublan gi amoon ci gerte geeg engrais gi jeex na de ba tax l'évidence yéen kaay ne ñi xam ne fañ doon mbubboo ne ay baykat leen ñu leen di jox engrais bu bari ak jiwu bari ñu di ko jaay moo xam ministre moo xam député ga wala kilifa diine képp koo xam ne daal fañ la ñaar fukki dogal ak ñett moom la Ousmane Sonko premier ministre jël yaw seetal bokk na ca dogal ya fa ñuy fexe ba séddaleem jiwu gerte bi engrais bi fañ koy def ci xarale yu yees yi maanaam mën ngaa nekk Dakar ci sa bureau bés ci sa machine xam baykat bu nekk luñ ko jox fii ci Saalum ak faneen fu munti doon nag ba tey bokk na ca dogal ya mooy na soldaar si takk der yi police ak gendarmerie ak yeneen yu mel ni ñoom fi mu toll ñoom lañ dénk séddaleem jiwu mi ak engrais bi kon tappale jeex na ñu ne déetawaaye ñetti téeméer ak fukk ci ay milliards dugal nañ ko ci mbay mi ci jamonoy Macky Sall 2020 ba 2023 loola nag Ousmane Sonko nee na fa bëgg ñu amal ci audit yëf leer ba ci sax jumtuwaay yi ñuy bayee ñoom machines yeeg tracteurs yeeg ñiñ ko mës jox lépp fañ koy leeral xam ndax ña ko yor ña ngi cay bay wala boog fañ koy jël taxal jaay wala ñu di ko luyee kuñ ci jox te jaarut yoon xelloo wala lañ la jox ci matériel fañ koy nangu ba tey bokk na ca dogal ya nguuru Macky Sall gii weesu fa yoreloon bor xaalis bu bari opérateurs yi léegi nag premier ministre Ousmane Sonko état bu Sénégal fa ñoo jël dogal ne juróom benn fan ci weeru mai bii ba fukki fan ci weeru mai fa seeni borom maanaam opérateurs yi tribune yéen a kaay ne campagne yu njaayum gerte geeg wutaleem jiw lépp fa am coppite Ousmane Sonko njiiti jëwri ne fa xam ne xel fa ko nanguwut Macky bi mu nekkee président ay milliards yu bëri dugal na ko ci mbay mi waaye résultat yi dara jiw wi du yegg ci baykat yi engrais bi du daan yegg ci baykat yi léegi nag fi jeex na ku bayut ak koo mën a doon nag duñ la jox dara ci jiw duñ la jox dara ci engrais baykat yi lañ koy jox te yëf fañ koy topp ba leer ñu ne yegg na ci baykat bi <laughs> gàññ ja mooy ne FMI kuréel gi yor kopparu àdduna bi fa ñoo ñëwoon Dakar doon waxtaan ak kilifay réew mu bees mi ci wàllu koom-koom beeg doxalin beeg yeneen yi ni mel révélation yene kaay na ñoom waa FMI tubaab yooyu fa ñoo wax ne gouvernement Amadou Ba bii ci atum 2023 bi seen liggéey moom farafet maanaam fañ leen a tàccu jaajëfal leen info yene kaay na fañ caa yokk ñoom waa FMI ne koom-koom réewum Sénégal màgg gi mu waroon a màgg ba toll ci 8 virgule 3 pour cent fa deltu loolu mooy fitna ji amoon ci réewum Sénégal réew mi tàkk ñu bëri liggéeyuñu jafe yooyu moo andi li ni ba tey bokk na ci gaz bi fa ñoo waxoon ne fañ koy sulli tàmbali di jaay léegi nag loolu fañ koo toxal ba fii ba décembre 2024 léegi nag ngir ñu joyanti ko faawu kilifa yu bees yi ñëw fa ñoo war a jël dogal yu am solo wàññi dépense yi di def farata ba tey yéene kaay bi ne kilifa yu bees yi nag ginnaaw bu leen waa FMI yi leeralee plan Sénégal émergent bi fi mu toll tax na fi mu toll nii état bu Sénégal nee na fay continuer wéyal di liggéey ci plan Sénégal émergent bi ba ca kanam xam nga fa am ñu waxoon ne fañ fiy jëlee PSE andi ñoom seen projet bu bees muy projet Pastef bi waaye pour le moment la ñu wax waa FMI yi mooy fa ñuy continuer PSE bi muy plan bi fi Macky bàyyi ñu jàppandi waale ci di ci liggéeyaale ba ca kanam en attendant ñuy dugal seen projet bi ñu ne déete waaye te FMI fa sàkku ci kilifa yi réew mi ñu andi ay dogal ci wàllu tarif yi ñu war a fay ci courant bi fexe ba askan wi xàttan ko rawatina njaboot gi maanaam daal ci gàttal wàññi courant bi <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne coowal rapport cour des yi ak OFNAC yeeg yi ni mel ba léegi pënd bi wuree gudde rapport yaa ngi génn bët bu set ko dénkoon libération ne faa lañ ci wax ga ñuy wax anaat ku fa nekkoon agent comptable ñett la bindal boppam ronqi xaalis ba dem ak moom cour des comptes nag fa wax ne xaalis ba yëpp waa fa koy delloo far force fara force doole mbaam benn dërëm fisin du ci manqué nag 24 heures yéen a kaay fa xamal ne bés bi ñu jagleel taskatu xibaar yi fañ ko doon màggal ni ki démb président Diomaye Faye nag fa bind ab bataaxal jëmale ko ci képp ku yëngatu ci mbiru rajo ak télé yi ni mel ca bataaxal ba fa leen a ñaax ci seen njàmbaar ñoom nekk seen kanam ñu war cee ba mucc ci joxe xibaar yu wér te wóor ak luy jëriñ ngir ñu gën tamit ba ñonga réew mi ndax réew mi kat kenn mënu koo suqali te taskatu xibaar yi bokkuñ ci kilifa diina nag yeneek nekk ca Medina Gunaas fa ñoo dalal président jomaay fay fa dem ca daaka ga turbine yéene kaay na moom président jomaay fay nag fa faa jilaat dogal ne fay wéyal di jàppale kilifa diina yi kaaruwaay yéene kaay fa ñoo xamal na ca diwaanu kawlax ndangaan fa xam oto sandarmu boo xam ne fa mbëkk benn jakarta maan ba mu doxee fa faatu ñàkk ba kanam levé yéene kaay ne benn waay bu ñuy wax Elaaji Ka fa jàppoon ab takk der boo xam ne eaux forêt lay liggéey mu dagg ay baaramam këtt ko ba baaram yëpp jeex tàkk ba mu ko defee nag fa dawoon ba baag léegi ñaari at ngi nii takk der yi mujj nañ ko jàpp ca diwaanu cees léegi moom fa ngeen di dagg ay baaramam rek mu jeex loolu mooy àtte bi gën a maam tàggat yaram wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès lu waaye doon jaay suba mu lamb ndax fa ñuy sëgg bëree sunu lamb yéen a kaay ñu ko xamal léeg si ko yéen a kaay ne Sa Thiès ndax fay fayul magam Balla Gaye 2 mi nga xam ne Eumeu Sène fa koo jàpp rek di mbuqi rek fu mu dajeeg moom rek mbuqi ba muy bëgg a dee ronqañu Balla Gaye ndax rakk ji tey wala boog tey Eumeu Sène leen di wanne maa leen mën yéen njaboot ak duma les gi leen fekk rek duma leen l'observateur moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme yaaw seetal fa xam benn jigéen boo xam ne fa xam jëkkër téléphone am portable ba fa paan léegi fa ko yóbbu ci ab defarkat ngir mu defaral ko téléphone bi ko waa ji defaralee ba jox ko téléphone bi ndaw si daal fa toog ba mu yàgg rek muy seetaan TikTok rek gis fa ay photom ak ay vidéo yu garaaw yoo xam ne fa def yaramu neen ndaw si fa jommi ne woy sama ndey man yàqu naa yëf yaa nga amee ci Kër Massar hmm, waa ma ne fa ngay porter plainte defarkatu téléphone booba rek yoon jàpp ko ñu xamal enquête yow la sant nga defar ko defar ko loo jëlee vidéo jàmbur wala photo jàmbur ko tasaare ñàkk fa la yem waaye yow tamit sa vidéo wala photo yu garaaw yooyu moo xam yow kenn la wala yaag sa jëkkër waroo ko bàyyi si sa téléphone